dem campagne parce que mom l'unité tek va ci eh, bop coalition bi. léegi daal la gis sama portable légui ñu né démissionné na de son euh, de son poste de représentant des peuples et de la planète léegi nii. démissionné na ci officiellement li ñuy discuter moy lutax mais démissionné na ci mom il vient de démissionner kon du lu ndaw il vient de démissionner lolu poste international la ànd ak tamit ak euh, ay privilèges mu démissionné ci daal ci communiqué mom dafa wax ni comme dafa nek euh, tête de liste loolu c'est pas compatible ak. kii yom bi. fonction buñ ko jox niveau international. kon effectivement l'île le privilégié ça veut dire quoi man ni je ko jàngatee mooy fu nekk Macky Sall hein, il veut revenir dans le terrain politique sénégalais et jouer les premiers rôles Macky Sall pour man euh, nu bu ma ko tuddee digérer day mel les jugements de valeur te dama ragal trop jugement de valeur mais en tout cas il, considère que euh, il n'accepte pas Nous considérons que ni pare na qui poli kii arène politique Sénégal. une politique du tout démissionner pas bu mel parce que pas bu mel noonu moom mën nga wax ni après nga pare sa retraite pare quoi ba non? Hein? c'est bon tu voyages sur la tu vas parce defal après un passeport diplomatique xam nañu ko tuddee international defal ay kii donc fu nekk nii kon su démissionné c'est que fu nekk kon Macky Sall fi mu nekk Sénégal il doit continuer à jouer un rôle politique important et nous mu ko war a testé déjà mooy mu xam Sénégalais est-ce que déjà nous ko jox ay suffrage ci législatif parce que sous législatif yi ça va être hyper compliqué après. mais est-ce que Japon, itam le le fait que sénégalais yu bëri dañuy jàpp ni dafa daal di bàyyi li nga xam ne nag moom mooy euh, dañ ko génnee ci nguur gi rek mu dem euh, employé ki nga xam ne Emmanuel Macron est-ce que du loolu tam la soralé ba mu daal di démissionné foofu. non bu doon loolu rek mu démissionner avant avant élection yi waaw mais d'ailleurs nim ko layele déjà moy élection yi hein, euh ci nekkee tête de liste donc euh, su féké ni mom kay euh, dafa bëggoon démissionner rek parce que dañ ko né employé Macron nga et cetera kon mu démissionné won mais non seulement lolu mais amna sax benen poste buñ ko nommé adaptation climatique xaw ma lan ak lan. Mhm. kooku tam té bobu démissionné wu apparemment donc bii la démissionné téye kon démissionné ou rek parce que dañ ko wax né employé ñëli nga wala nangam nangam je pense que Mimi mi ngi ko wax lolu genre euh, en tout cas ce rôle en Afrique euh, lañ doon gëna xaar. Mhm. bon Mimi Touré ay contradictions, etc. bon comme qui, bokotul ak mom ay politique yoy bayiko quoi mais bon diko wax fi mu wara a am ki mom xamna mais même si même si sur le principe c'est vrai tay par exemple un un président africain je ne dis même pas au-delà de Macky Sall un président africain bu bu bu bu def parcours bu parcours Macky Sall tous les échelons politiques hein? Mhm. ba le président aussi def deux mandats et cetera pour man euh, parcours boobu war na ko mën verser Afrique maintenant au-delà même de son pays africain. donc effectivement nous mel nous une organisation en union euh, africaine euh, pour man war na sax dépasser les organisations sous-régionales les cdao e CEDEAO Union africaine mu am fa genre statut bo ancien président yoyu ñi ci exemplaire nak est ah, ñi ci exemplaire lay wax. Mhm. ñi nga xamni yu kenn xamul lañ def ba jàpp leen tëj wala di leen wër ñooñu taxul may wax ci exemplaire am ben rôle buñ leen au plus haut niveau de l'Afrique. parce que dañuy am une vision stratégique sur euh, sur les choses au-delà de leur propre pays mais à kulli hal, Macky Sall man je pense que pour plusieurs raisons en tant que nit Macky Sall a des comptes à régler avec le Sénégal et politiquement avec, n'est-ce pas, euh, beaucoup d'organisations politiques et de personnalités politiques. Et il est encore jeune. Donc je pense qu'il a des comptes à régler. Il veut revenir régler ces comptes-là. Euh, et il sait qu'il ne peut les régler de façon normale et républicaine que par la, par la politique. Donc, que man, je ne sais pas, mais j'ai un peu tendance à penser que pour moi, je ne pas être président bu faites président d'accord président, hein. mm-hmm. mais ku ce président le député. Euh, waaw euh, ñëwaat député man rafetlu ko donte man ma Hollande def France Je hmm. France yi je ñoo Hollande dem député Hollande député bon mais mais France nous sommes gens ñun sont mais par exemple comme nous pays anglo saxons nous ci parce que nous donc président échelon inférieur Ce n'est pas inférieur en tant que député dafa inférieur non non non mais nekkoon nga président ah. te yow est-ce que dina yomb ci mom parce que déjà sama benen question mi laaj ci lool la mom la ñu sanctionné ci euh, li nga xam nak euh, mom moy lepp lim fi ne manam régime mom lañ sanctionner sanctionné même bu dee ki ko représenter moy Amadou Ba moy régime Macky Sall la sanctionner sanctionné tey jii bu ñëwaaté encore mu gis ni famille déjà c'est séparé dispersion amna fa amna na ñi nga xam nak nag àndoon nañu ak mom tay ñu ngi ci Amadou Ba mu ñëw tase ak ki nga xam nag c'est son poulain maanaam moom moo ko désigné pour mu nekk candidat tey ji ni ñu tasee ci benn terrain est-ce que dina yomb ci moom mooy premier laaj deuxième bi est-ce que du donne une première dans l'histoire waxuma Sénégal sax yaa ngi doon joxe exemple am euh, Europe mais est-ce que Afrique c' pas une première président bi nga xamné ne génn nga fraîchement euh nga doga ñëwaat encore parce que dañ lay may temps de repos ba nga sori sa dëkk bi. Mhm. té Macky Sall ak lepp li nga xamné ne nag lañ ko doon tuumal fii mhm. euh nga daldi baye lepp ñëw fas yéene duggaat ci biir politique ak naka lañ nañ koy accueillir. Mhm. Euh, euh, déjà intercoalition bi Amadou Ba bokk ci hein sen bopp. Amadou Ba dafa lank néna bokul euh, mom du dem ak ñom waaw ah, voilà ah bon c'est clair. waaw mom waa PS la lay andal PS lay àndal PLS PS lay àndal nga xam Macky Sall y une famille un peu partagée parce que. ah bien sûr benn bokk yaakaar PS mu ngeen foofu. tey jii nii dem nañ taxaw euh, famille libérale. entre guillemets libérale la voilà. il y a aussi les démocrates truc truc. Mhm. donc le le euh, non le pays est très clivé sur le plan politique euh, comme ni ma la ko waxee alors que dëkk yu rëy yi daal de façon générale en démocratie ñaar ñett tendance politique daal la am donc Sénégal on a am tendance genre tendance euh, par exemple la mouvance souverainiste euh, je peux dire ça passe le parti qui ko avec la mouvance libérale hein, et la mouvance de gauche. Mhm. Hein? Moi, je verrai le Sénégal avec trois mouvances comme ça peut-être il peut y avoir une quatrième mouvance en tout cas mais bu original d'abord, boo xam ne c'est xam ne lii effectivement ko ranger ci ñett mhm. euh, mais en général nous nga ko gisee parti yu comme ni ma dit, ont créé créer pour qu'ils a bokk ci élection yi langaamu ci coalition etc euh, etc mais c'est pas que nous avons une vision une stratégie aussi un personnel pour xam ni euh, tey nous nañu au plus haut niveau etc, cetera donc loolu euh, am mais aussi il faut se dire aussi une chose c'est que tey Macky Sall même bu nekkoon tête de liste je te dis une chose nous gagner, il va pas aller à l'hémicycle hein. hmm. a pas jox place am il hein. n'y du dem de place am la loi le permet gisoo ñoom dañ koy def je pense Amadou Ba était tête de liste xaw ma ci ban élection après il n'est pas parti. Ah, on a jamono yi ñu doon wax ni ça, maître maître Abdoulaye Wattam. tam <laughs> tegoon nañ voilà tête de liste. après duñ dem duñ dem kii hémicycle. Mm-hmm. par exemple te pendant loolu par exemple man dama ko ñaawlu parce que dama jàpp ne euh, xeetu xeetu tricherie la quoi c'est-à-dire que nga officiellement tu es tête de liste donc tu as vocation à être député. Mm-hmm ñu voté la ci conditions yi pour nga nekk député ñu pare nga ne leen waa d' accord mais sama waajee lay jox sama place je je me dis que par exemple il fallait une loi buy interdit loolu soit da nga bëgg a nekk député c' est individuel. Mhm. ñu voté la boo nekkee député yow la boo bëggoo nekk député keneen ki ko ki ngeen bëgg mu nekk ko ngeen def ko tête de liste. mais man tête de liste parce que siiw naa wala xaw ma lan après ma jox keneen yooyu yëpp ay njublang la yoo xam ni daal rafetul rafetul mais comme je te dis ce qui est sûr c' est que tey si Macky Sall euh, s'en sort il va pas aller s'asseoir à musique parce que du am jot bi euh, leneen lay xalaat plutôt que di dem di fekkee ay euh, plénière rek yoo xam ni moom doon na ko organiser xam ni mu demee donc yooyu pour man ay faiblesse la ci suñu ci suñu ci suñu loi yi nga xam ni mooy organiser euh, élection élection yi mais ala kulli xaal de toute façon Macky Sall ak coalition nu ñu mën a am en tout cas am na ñoo xam ni s'ils sont cohérents jàpp ne ñoom li système entre guillemets en tout cas le régime Macky Sall la sanctionné je vois pas comment ces gens-là vont encore voter. pour Macky Sall ak sa coalition s'ils sont cohérents. Mhm. Euh, donc pour man Macky Sall a na risque ak hyper coalition pour man kon mi ngi bëgg tester effectivement est-ce que réellement présidentiel bi c'est un bon indicateur que ni régime am sanctionné wala est-ce que dafa am yeneen yu bari yu ci rax. Voilà, est-ce que la campagne a été mal tenue Etc. etc. Moi, je pense que nous avons testé Parce que si vous avez une législative, vous savez ce fait qu'il vraiment amu fa dara lu am solo mu xam kon effectivement euh, régime am ak moom lañ sanctionné parce que moo defar hyper coalition bi et cetera su amee lu am solo on va se dire ah voilà et ça devient plus clair. kon man présidentiel, bi soo gisee ma ñàkk ko c'est peut-être parce que peut-être que Amadou Ba a mal fait la, la campagne wala que sama ñàkk jubóog yenn ñàkk jubóog yenn gars yi moo taxoon et etc mais les sénégalais batay ñu moy jox cër etc waaw nañu ñëw ci euh, imam Bougane parce que gis nañu ni mën nañ wax tay ji ni euh, ci walum opposition bi.